yëngootina ay sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina ñu jóg di way sang be safar terootina sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina bu ñi jóg di way sang be waaw ñu ngi leen di sant di leen fay di leen jaajëfal bu di kontaan ci teew fii Euh, tey Ndindi kër sëñ Abdou borom Makaarimal Axlaaq ginnaaw bi nga ci bisu màggal bi gis nañ la nga siyaar ko wala yeggagoo ci moom waaye yaa ngi ci biir kër gi fu tey ci màggal bi ak doxinam ci réew mi ba tax waaw sëñ Abdou nag euh, borom Makaarimal maa ngi xamante ak moom en 2012 kilifa bu yaana maar landing mbayaan mbesaan sekk moo ma boole ak moom depuis boobu tamit. maag sëñ bi ñu ngi jàppante fasante kóllëre muy sama sëriñ di sama xarit bu may tooñ sax sëñ fuu la may woowe man daanaka bu ma saa yu ma fi ñëwee damay taxaw ci bunt bi rek taalibe yi jàpp sama loxo yóbbu ma ci appartement boo xamante ne moom la ma sëñ bi dencal maag ñi ma àndal donc may kontaan ci yëg-yëg boobu nga xamante ne euh, loolu la sëñ bi am ci man sëñ bi daal for na ci man for boo xamante ne Euh, euh, fu ma ko natt rek ëpp na fa ci misaal tabaski bi passé sëñ bi moom ma may xaru tabaski donc waaw sëñ Abdou Karim moo xaru tabaski donc xar bi sax dama ko néeg rey donc mu ngi kër ga ma teg parce que vraiment lu fooroon la ci man lu ma xaarul woon la dama fi ñëw avant tabaski di ko siyaare si mu jël ab gàtt jox ma donc may jaajëfal sëñ bi bu baax a baax di kontaan ci moom ndax euh, saa yu ma fi ñëwee mbégte laa fiy jëlee saa yu ma fi ànd ak samay xarit mbégte lañ fiy jëlee donc ma koy ñaanal mu yàgg fi te wér. waaw ci loolu dégg nañu nga tudd kilifa tey àndoo leen ci bisu màggal gi ñàkk ànd boobu nan la la def tey ci ñàkk te waaw waaw di xam ni rek euh, fu waay ne mën na faa màggale di xam ni doole bi mu am moom fi mu nekk mi ngi fay màggale jàmbaar ju mag a mag la ma foofu di màggal ndax màggal sëriñ Touba dafa ne fu waay ne mën na ko faa defee. te man mi jot a xam foofu xam naa ni bu ay màggal jotee wala bu ay alxamis jotee naka la góor yàlla yi di góor ah, di di sant di sikkër donc euh, kilifa jàmbaar ju mag la donc euh, waaw ginnaaw comme màggal gi mën nañu mi ngi ko fay door a fekk ak ni ñenn ñi di wax ak melokaanam mais bu ñu jegee Fou Malade war nañoo mën a gën a xam ci kilifa. déedéet loolu indi wu ma fi li ma fi indi mooy màggal euh, jàng alxuraan jàng xasida jàng salaatu ala nabi comme ni ko sëñ bi waxee léegi léegi wax wax waxu mbiri kilifa mooy. kilifa fi mu nekk mi ngi fay màggal di fa sant bu baax a baax di nangu ni effectivement suñu borom bu la tegee nattu boo ko muñee da ngay naatu. waaw kon tey fu lan mën a soññ mbokki taalibe yi màggal si ak seen doxin pour ñu xam ne màggal gi bisu cant la. waaw sëñ bi nee na ah, ah, jarul jalaw jalawi lan la wax nee na màggal tey la laaj ak dal. donc nag te taalibe nag dafa war a jëfe ndigal bàyyi tere. loolu daal ngay conseillé ga ñu ngi lay safar terooti ay sunu deret yëngooti na sunu sidit yëngooti na ñu jóg di way sang be safar terooti sunu deret yëngooti na sunuy sidit yangooti na bu ñi jóg di way sang be